wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalq sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain naaw ba nu santee buur bi tabaraka wa taala nu julli ci yonent bi muhammadu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam di sant Sëriñ bu baax di sant sunu mag ñu baax ñi tàmbalee ko ci sunu maam El Hadji ak mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo ŋànk diine ji te lislaam bi ci Sénégal ñu indi ko fii mu toll nga xam ne bari na ko jariñu ci jàmm ji ñuy dund te ci ñoom la jóge di sant bu baax ñi fi jot a jël kàddu di ay boroomi xam-xam di xel yu rafet te li ñu wax lépp kenn ku ne man cee duy ren ba déwén incha allah mu mat yóbbal sëkk di sant ñi fi teew ñëpp di leen wax ne noo ngi ànd ak sëñ Ibalo sëriñ Yabal Guèye euh, di leen ak sunu doom sëriñ Mouhamed Mbacke sëriñ Baba Camara mi leen di jottali wax ji sëriñ Cheikh ak di leen jottali nuyoo euh, ci bokk yi ci Touba muy sëriñ Cheikh moom euh, nijaay daam jaxate ak Euh, Serigne Ibra Jëmm Njaay ak ña féete Touba ñëpp di sant ñi fi teew ñëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw euh, di leen xamal ne bis bu mel nii mënut ñàkk ndax bisu saafonte la bisu jokk bokk la lu fekk fi ay bokk yoo xam ne ci loolu lañuy xëy ci lañuy gont du xamuñu guddi xamuñu bëccëg waxtu wu ne loolu moo leen yitteel bokk na ca muy sëriñ Momar muy nekk ci sama wet ak sëriñ Badara mi nga xam ne moo doon wax léegi euh, ñu leen di sant bu baax ci liggéey bu rëy bi ñuy def ci mbokk gi ndax wër nañu Sénégal gépp képp koo xam ne bokk nga ci ndaam dem nañ ci yow ak foo ci bokkee waxtaan ak yow jaar ko ci ay kilifa jaar fañ jaar ko fañ ko war a jaar fas yéene dajale ñooñu ñëpp ndax loolu day am lu am solo te liggéey nañ ci liggéey boo xam ne yaakaar naa ne bu résultat bi génnee ñëpp danañ ne askay kon alhamdulilah sëñ Mamad ñu ngi leen di sant bu baax ci wàllu googu sëriñ moo du ñu ngi lay sant bu baax yooyu tam euh, ci sa taxawaay di sant ñi nga xam ne itam ñoo ne ci kuréel gi di ko dundal sëriñ Cheikh Lo ñoom sëriñ du Sall. ak xale yii nga xam ne tey mat nañu relève bu baax a baax a baax waaw bi ñu fi bi ma leen gisee seen doxalin ak seen organisation kenn ko ne badge bañ la defal nga xam fa nga cosaanoo ba ca Mamadou Binta euh, addina dañu koy organiser li ñuy wax organisation ak méthode lu mu amul rek baaxul mbir ni nga koy saytoo ak saytoon wi ni nga koy saytoo ak ni ni ñu koy saytoo maanaam organiser nekkalin wi ak nekkal gi lu ci am solo la lu ci ne la jiitu nga jiital ko la ca topp topp ca la ca topp topp ca loolu mooy organisation kon alhamdulilah mel na ne xale yi lanu mag ña bàyyal nu itam affaire rafet nañ njort lool ci ne la cay suñu wàll dox nañ ko ba ñoom it liñ leen bàyyal rafet na njort bu baax a baax a baax a baax kon alhamdulilah lu lu lu am solo la li ci des mooy euh, liggéey bi ñu bañ cee xaar dara ndax damay xaral faral di wax ne loo tàmbaliwul du egg loo tàmbaliwul rek du egg defe naa mas naa ko fee wax kon lii ñu tàmbali muy liggéey boo xam ne dañ koy jëmale ca maam ya euh, na ci kenn ku ne jëmbat sa fulla ak sa fayda yaakaar naa ne ku ñëpp tofli mu tooy kon nañ ci gën a góorlu ba at muñ ñëwee rek fekk fi loo xam ne danañ ci mën a sukkandiku ba meneen at ma bu ñëwee ndax tabax mooy jël birig teg ci birig rek lu mu gën a gaawee rek tabax ba gën ci gën a gaaw a àgg kon alhamdulilah loolu it ñu ngi ci soññee bu baax ndax euh, li ñuy wax kullu shay'in talabtuhu fi waqtihi qad faata waqtuhu looy sàkku rek lu ne jàpp ne waxtoom jot na fekk waxtoom passé na le temps n'attend na pas du tout n'arrêtera jamais son vol kon alhamdulilah loolu nañ ko bàyyi xel loo war a def tey rek bul ko xaaree suba loolu nañ ci gën a jëmbat sunu fayda bu baax a baax euh, sëriñ euh, mbakke Fall wax na fi wax ju am solo moom itam ak euh, ki mujj wax muy sëriñ Badara euh, li ñu bàyyil mag ña lu ñu bàyyil mooy diiney ak akuk mbaax akuk ngore waaye nag dana toll ci jamono joo xam ne ak mbokk muy alal yàlla lu naqaree euh, jokkoo la lu naqaree dundal la dafa bari yu koy gàllankoor mooy mbooloo mu jóg mu ne day am ñu jóg ñoo xam ne buñ ca doonul dara génn ca mbooloo ma day ñoo xam ne buñ ca munte yàq génne ca mbooloo ma ñu néew ñoo cay bokk ñoo xam ne dañuy dëggal waaye nag lii dey boole bi yàlla ndax yàlla mi def nu bokk genn deret loolu dafa jiitu ci lépp waaye it bu yàlla bu yàlla defee ñañ la booleel bokk ca ña nga xam ne ñu tànneefu lañu ba ñu baax ña ba ñuy ñëw ci ñoom lañu tànn loolu da ngay xam ne am nga lu rëy ndax sëriñ Modou Binta mii kat ànd na ak maam El Hadji Malick ñu ànd dem Makka aji Makka jaar Faas def loolu seexul xadim ñaari guy yi ngi gis ci armeel yi def nañ fa barab boo xam ne ñëw na fa jaar da daan baaxoo armeel yu mu romb euh, euh, ñaanal leen te loolu def na ko fii itam ci Kër Madu Binta sunu maam itam jóge woon na fii fekk ko ci xumaag mu jox ko ndigal ndigal la ñëpp xam nañu ko mooy Serigne Touba ni mu daan aare ak ni mu daan aaraloo ak ni mu daan bañee ku yàqal nit daf ko wax ne ko bu fekkente ne danga daan yar bëy na nga ko bàyyi xoolal ma ka ne ca gànnaar nekk ci fitna nekk ci résidence surveillée di xalaat ki ne ci Sénégal ki ko yàqal ak kay yàqal ndax ñaari yëfa ca ne ki yàqal day am bakkaar ci yàq ga muy yàq kañi yàqal itam da cay loolu mu fege mu fegel ko loolu keroog bi mu ñëwee bay fanaanu fi daaneki ca yem moom alhamdulilah loolu euh, aw njàngaleen la tombam yem daan tomb day seet ci pédagogie ña nga xam ne neexuñu xel mu fekk ay tomb ak joxoñ mu fexe ba leen ko dugalal ci seen bopp noo xam ne ña mën a jàng pédagogie daanaka ñooy yem maqama ci mën a roy suñu borom tabaraka wa taala ci ab éducation ci yarin wu mel noonu kon suñu mag ñooñee euh, loolu la ñu bàyyeel mbokk gi nag dana am yu baree bari yoo xam ne dana ko yàq moo di yow murit nga kii tijaan la kee xaadir la ku féetewul fu ma féete lu ma bokkak moom bokk ak moom duma jubóog moom euh, diine dafa ñëw pour defar doomu aadama pour indi fi ay makaarimal axlaq te loolu wàllu pas-pas la kenn ku ne euh, lakkum diinukum walee diin kenn ku ne la nga gëm da nga koy gëm waaye ñuy def base bi muy mbokk gi nga xam ne yàlla moo nu boole yàlla mi nga xam ne moo man lépp moom fépp moom ñëpp moo nu boole ak mbokk boole nu deret ñu sàmm loola xam ne ña doon tànn ca kilifa yooyee ba ñuy tànn fii lañ jublu si woon kon kenn gënu leen kon alhamdulilah loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat a mat a bàyyi xel la la ca des mooy àddina jamono ji euh, nit ku ñuul daaniki euh, boo dee seet l'islam alhamdulilah euh, ñëpp a ko tax a jóg Muhammad sallallahu taala alayhi bi muy jóg bachare yëpp a ko tax a jóg Euh, waaye nit ku ñuul dañ koo bëgg a relégué au second plan delloo ko ginnaaw bu fekkente ne yow tubaab bi ñëw na not la not la jox la jikkoom ba ngay tiitaroo booy wax sax da nga naan duñ koy waxee ci wolof euh, mu ñëw kam fi bàyyi woon mu weex mu fexe ba jële ko fi jàngal ku ñuul ki noo xam ne ku weex ka sax mën a ko woon noona te lam koy jàngal lépp mooy mu nekk njariñam waxtu wu ne muy liggéey ci njariñam di ko jox nekkub jaamam loolu kon nit ku ñuul ki fu muy jëm bu yemee ci loolu ka ca naar ba itam li suñ mag ñi defoon fii ba nga xam ne loola moo tax ku ci ku cay xam dara xam ca dara am moyen mën a génn ba xam loola nga dem ñu defal la lavage de cerveau boo xam ne nga ñëw itam weddiwaat suñ mag ñi mais loolu itam kon ñun fu mu jëm ñoom seeni pexe moo di euh, séddale pour sàkk jàll kon nan xam suñu bopp gën a xam suñu gëdd xam suñu bopp mën a booloo waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu loolu ñu ngi koy wax booy na lex yëpp ndax jëfe nañ ko baat bu mujj bi de moo tee ñu ko wala tafaraqu kenn ku ne ngoy na ci buum waaye nag bëgg dagg wàllam yóbbu yaakaar naa ne taxul woon ñu wax wala tafaraqu kon alhamdulilah loolu lu mat a bàyyi xel la nit ku ñuul sunu borom moo ko bind Serigne tubaa nee na du càggee nii da ngaa gàtt kawar wala dangaa ñuulub der que sax ma xel daa war a gàtt nañ gën a fonk sunu bopp am na nu wax sëñ Bada wax na ko léegi euh, ngor ak jom wax dëgg yàlla yaakaar naa ne lu diine lu dëgëral diine lay doon wala lu lu diine di dëgëral waaw ndax loo ci seet ci lu baax rek ma nga ca ngor ak jom waaw loo ca seet rek ma nga ca biir te loolu nun am nañ ko sun maam yi amoon nañ ko démb sëñ Cheikh Mbacke Fall mii wax na ko léegi ña fi ne woon daaw ja euh, euh, démb ak bërki démb dooni jàmbaar man fi tey euh, lislaam ji ñu man ci man ci lu baax jar nañoo kañ alhamdulilahi rabbil alamin te yaakaar naa ne yàlla joxu ko ñëpp bàyyi nu kon loolu itam mat naa toppatoo bu baax a baax a baax kon nuy bàyyi xel Euh, euh, lii yiy këfaate ci jamono mooy internet bii nga xam ne lu neex waay wax ku neex waay saaga euh, boo ko toppee sa culture bopp sax da koy fàtte day mel ne yow amoo tubaab bi da laa effacé complètement indi jëmmam jaare ko ci téléfilm yi jaare ko ci théâtre jaare ko fu ne ba yow sax dootoo gëmati sa bopp waaw mu dugg nag ci diine ji ndax ña ngay beru ci seeni guddi ab lim bu néew a néew di jéem a tàggale euh, bu ko defee bu ñu bu ñu paree rek ci suñuy tànk lañ jëm ñun jullit yi bu ko defee jullit bi ñëw fi naan yow kenn ngay jullee kenn ngay jullee euh, xàjjali ko boo xam ne wax dëgg yàlla day mel ne kon dañoo bëgg a far loolu ñu wax ne wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu te jullit yëpp benn lañu nañu ànd nangoonte di tolérante te bàyyi def dialogue islamo islamique d'abord dialogue islamo islamique waaye dugg ci jàkka fekk fa ay jullit ne yow nga nga waddooy bomb nar leen a faagaagal di leen rey walla nga xam ne képp ku la gis dana xam ah photo yi ngeen gis ci ginnaaw ñu ne allahu akbar rek donte sax loolu xëy na nekkewul noona kooko daal di tiit xam nga loolu dañoo waroon buñ ne allahu akbar ñëpp daw ñëw sawar ci li ma koy waxee kenn ku ne da war a wut sab takk ndeer wutub seetu def ca muy lislaam ku xool sa jëmm rek gis lislaam ci sa biir ci na ngay xalaate ni ngay jëfe ni ngay doxalante sa diggante ak doom aadama yi sa diggante ak sa borom bu ko defee ku la gis xemeem la ba la nga nekk mu sawar caa ñëw waaye bu ñu fi nekkee di ŋaayoo kii lii la xalaat kee la la wax mais diine dafa am domaine d'interprétation ci diine waaw fuxaaw yi ñoom ñëpp jubawuñu ci ci ay kàddu consensus lañ def moo tax lu ci dul alxuraan ak hadith consensus la ab domaine d'interprétation la am na le docteur en islam ñoo xam ne bu ñuy waxee lee ñee wax lee ñee wax lee ñee wax lee kon tolérance rek moo fi war a am xam ne dina ji noo ko bokk l'islam noo ko bokk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi ñëwee humanité yépp ko tax a jóg loolu ñu xamaale ko ci suñ biir xam ne mbokk gi itam lii koy yàq moo di kii fii la bokk ci biirub tariixa sax danga gis ne ku ma bokkalul sëriñ lu mu doon doon sama bokk loola laay gën a jiital fekk sëriñ ba ba muy tànn ci ci ci la ñëw tànn fi yóbbu ba loola mën am kon sunu mbokk gii nga xam ne kenn amul lu ko gën wax dëgg yàlla kenn gënulu ay mbokk nanu ko jàpp te jàppante ci sunu biir kenn ku ne boo taseeg sa moroom xam ne nga nga jàng mbokk gi ndax euh, nga mën a xam na nga koy jàppe koo gis euh, nga xam la nga bokk ak moom rek ak wegeel day daal di am seen diggante bu ko defee yu baree bari ci yu munta ñàkk day daal di mën a euh, ñàkk ci seen diggante ba nga xam ne farata ak sunna ak dox tànki jàmm rek moo ciy xaj suñ biir kon yàlla na yàlla defal tawfiq nuy sant sëñ Mouhamadan bu baax a baax moom Cheikh Mahmoud Mourtada di sunu sag bu baax a baax ci dëkk bi liggéey fi liggéey bu rafet a rafet a jàng ak jàngale euh, ci loolu la su yonent bi waxoon ne ki gën ci yéen mooy ki jàngale alxuraan ki jàng alxuraan te di ko jàngale waaw kon alhamdulilah ma nga ci liggéey booba euh, nekkal fi l'islam waaw fu fi waay nekk rek na fi nekkal l'islam jëpp rek te ñu teerlee këral interne waaw amul benn njariñ ñeneen ñi nga xam ne duñu jullit di ñu jégg ñuy saagante ko xuloo ko kii lii la kee lee la wala nii lañu war a defe lii nii lañu war a defe lee di saagante ba ci net bi loolu lépp mën na ñàkk mën na ñàkk ña nekkul jullit wax dëgg yàlla loolu rendrul service l'islam rendrul ko service day tax ñeneen ñi nekk fenn xeeb ñu ñeneen ñi defuñu noonu ña ngay seen ñoom nu ñu kompaloo ak nu ñu nekk benn pour jaar ci suñu tànk daaneel ñu loolu rek la seet kon ñun ñu itam dana war a booloo nekk benn gëm yàlla Euh, te nangu dogalam bu baax a baax nekk benn euh, loolu yaakaar naa buñ ko defee dana baax ñu ngi sant aussi euh, sunu doom sëñ Xaadim moom sëñ Mbàkke Soxna ñooñu ñëpp ak waa kër sëñ Baaraak waa kër maam Cheikh Mbay waa kër Cheikh Oumar Foutiou Tall bokki yi nga xam ne itam ñu ngi jóge ci dëkk yëpp te lépp di ndaam gi ñu koy jël sunu sunu cant ak sunu ngërëm di ko teg ci loxol suñu mbokk suñ mamal loo mu jottilil ñu ko euh, incha allah mi ngi ci ay pexe yoo xam ne bu amee yaakaar naa ne mbir mi dafay gën a avancé incha allah yal na ko yàlla defal euh, loolu mu antu ci te yàlla euh, may ñu kàttan ak wërsëg ak xéewal goo xam ne ak wér-gi-yaram goo xam ne danañ ko ko mën a gën a jaamoo te yàlla barkeel njaboot gi góor ak jigéen mag ak ndaw wa kullu aamin wa antum bi wa salaamu aleykum